Euh, jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur Télé Futurs Médias ñu ngi leen di nuyu encore une fois euh, ci suba si euh, fas yéene àndaat ak yéen ci waxtaan bu yaata nañu ko tàmbalee fan yi di tànn ab sujet di ko traité ànd si ak ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllu boobule. tey nag dañoo ñëw ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu éducation rawatina. Euh, li nga xamante ni moom la ñu nemmeeku euh, ci wàllu fraude yi euh, aju ci metre élèves yi nga xamante ni ñoom ñoo yor njàngale bi Euh, ci loolu la ñuy nag euh, waxtaanee gannaaw bu ñu limee lu toll ci 690 euh, cas ci li nga xamante ni moom mooy lim bi dégg ngeen jamono ji yëpp ministre yi nga xamante ni moom moo ko yor ak ñi nga xamante ni ñoo seq mbir mi ku nekk nu mu koy aborde ak ni mu si xalaat ak fi ñu war a mën a jëm. ba tax nag ñu invité fi suñu ay gan tey jii ñu koy ki nga xamante ni moo nekk suma ni ñuy waxee à l'extrémité. Euh, de la table di Pape Demba euh, Soumaré euh, bokk ci amicale des élèves maîtres ki nekk ci wetam di Doudou Ndiaye nekk syndicaliste ca SUDES naka noonu Samba Diakhaté mi nekk ni sama wet Samba Diakhaté nekk secretaire général syndicat des inspecteurs de l'éducation nationale ci sama ndeyjoor sunu tonton Momar Jim Cissé Cissé Euh, nekk ki nga xamante ni moo yor communication euh, fédération nationale euh, des parents d'élèves et étudiants fii ci réew mi suñu jigéen nag moom moo nekk la seule femme de la table bi ñu koy wax madame fay Marie Sibi nekk conseillère foofu la ci ministère de l'éducation nationale kon loolu moom mooy liy seq table ji <clears throat> ñu nag jox kàddu gi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 maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau di la nuyu di nuyu mboolem téléspectateurs yi di wax ne lu mel nii surtout bi ñu changé doxalin ci mbirum ni ñuy jëlee ñi war a jàngale xalaatuñu woon ne dina am ndax am na doxalin bu fi amoon ñu ne doxalin booba xëy na du tax li ñu namm ci njàngale mi ñu am ko donc nañu soppi waaye bu ñuy soppi nañu aar tànneef bi ba ku ñëw war cee mën a dugg nekk koo xam ne kii yelloo nga dugg ci biir njàngale mi. Mhm. kon waruñu woon mën a xalaat ne lu mel ni war naa mën a am ci système bi bi ñu tëjee. Mhm. li ñuy wax verrouillé ak léegi. Mhm. waaye nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. yàlla ak dogalam te ma yaakaar ne sax nag. xëy na mu feeñ nii. mooy li nga xam ne moo gën ci système éducatif ndax mm-hmm. tey njàngale mi coow li bari na torop mm-hmm. donc lu mel nii dinañu may doole mm-hmm. ak xëy na ñu seetaat suñu doxalin ba gën a aar li ñuy def daal euh, Momar Ndiim Ciss yow ci wàllu parents d'élèves yi euh, lii lu leen bett la xëy na ah, d'abord damay wane ne inspecteur de l'enseignement bu retraité la Euh, bañ may jël may jàngale aussi am na nu ñu jëlee waaye jamono dox na ba euh, li ñuy wax naan euh, société boo gis la nekk ci biir soo càmbaree mu ngi ci biir lekkool ndax société sénégalaise valeur yi dañuy réer tumuranke su valeur tumuranke nag nga xam ne jom amatut fit moo fi nekk te fit woowu lim lay yóbbu musiba la kon nag ñu war a aar suñu bopp aar suñu réew ci yu bari ba tax na suñuy tànn jàngalekat jàngalekat mooy kiy tabax nit kiy tabax nit daf koy sol ay valeur yoo xam ne yu dëgër jom liggéey ak fonk sa bopp naw sa bopp kooku nit ku mel noonu nag buñ koy tànn ak tànnin wa waaye nag nduxum dafay gaaw dafa yomb gannaaw nduxum dugg na ci man de dinaa ne bett na ma bettuma ndax eh, examen boo koy def dafa am chart yooyu tëral eh, ba nga xamee ne convoqué nga candidat yi ñu subir épreuve yi ñu corriger jury bi délibéré yooyu yëpp dafa am tànk bu mu war a génn waaye su yàggee lool rek ndoxam mun nay dugg. ci biir mun nay dugg ci biir. te moo ñu indil. galawaale moom mooy kii <coughs> dinañ si ñu ñëwaat en profondeur ça c'est juste benn tour de table ah Samba Diakhaté yow mi nekk secrétaire général syndicat euh, des inspecteurs de l'éducation euh, tamit la même question est-ce que. Euh, lu lu la bett la euh, ginnaaw bi nga nekkee ci mbir mi xool amoon ay prémices euh, wala c'est une vraie surprise. jërëjëf Papis ñoo ngi nuyu également téléspectateurs yi. Mhm. di wax ne bett nañu ndax yaakaaroon nañu ne dispo ministère tey war na jël disposition yu ci war ba lii du am wante. mën nañu aussi sénégalais bu nekk war a mën a gis ne bu ñu analyser euh, ni concours bi doxee dafa am dafa mus a am toujours concours euh, suñu doyen ji Momar wax na ko léegi euh, mais également mës a am ay recrutement parallèle loolu yàgg na ci système bi mm-hmm. loolu depuis moniteur depuis lu ñoon wax LD Dande yàgg na fi ñu jóge fi jaar ci côté sécuritaire kon loolu dafay am ay pratiques yoo xam ne daf ko indi yoo xam ni dafay nekk parallèlement au concours loolu tax na ba euh, mën nañ jàpp ne daal euh, daanaa mu ñuy soupçonné yoo xam ni dañ ko yaakaar mais comme ministère bi moom moo yor ay preuve am euh, te it xëy na li dinañ ci ñëwaat léegi du ñàkk na mu war a yaataale ba na mu war a yaataalee ba ñu mel ni ñun syndicat yi ñu gëstu koo xool la fa nekk amu ci Euh, ñu jàpp ni daal wax dëgg yàlla euh, ñun du ñu mën daal lu dul naqarlu ko. Mm-hmm. Euh, rafet it dèjà jéego yi nga xam ne def nañ ko ci quand pour mm-hmm. daal loolu jóge fi. Mm-hmm. Doudou Ndiaye yow yaa ngi wuyoo Sud-Est syndicat la également est-ce que mun nga ñu replonger un peu ci genèse wu li andi sax dèjà maître élève yow ñu nekk syndicaliste. jërëjëf Papis hmm. biñ la santé ci invitation bi nga xam ne woo nga ñu ñu mën a waxtaan ak askan wi ci mbir mi nga xam ne ñun ñëpp la soxal. Mhm. Euh, ñu doon ñaan nga may ñu ci turu syndicat bi SUDES. Mhm. Euh, ñu sëngeem yeesalaat suñu njaale. Mhm. Euh, jëm ci suñu ndong boobu ñu faat ci université Cheikh Anta Diop. ba nga xam ne askan wi communauté éducative bi yëpp a ngi koy méttitlu. ñu koy jaale étudiants yi di ko jaale njabootam. di ko jaale ci turu naataango yëpp yu toog ci taabal bi di ne loolu métti nañu. pour nag ci sa laaj bi. ñun lii daanaka mun nañ ne bettuñu trop. ndax lu ñu doon njort ci système bi la ndax boo ko xoolee euh, système bi ni muy doxee euh, wax nga ko léegi euh, tolloon nay jamono ñu indi fii li nga xam ne mooy mbirum volontaire te boo xoolee ci mbirum volontaire yooyu mooy daanaka ñun suñu syndicat bokkoon ñu syndicat yi jógoon di xeex ne loolu baaxul ci système bi ndax dañuy jël ay nit ñoom ñu tànn leen ñuy liggéey ak seen i moroom naataango mais payoor yi yemale amul ci diggante bi ñu ne loolu joxuñ leen seen ak seen yelleef ba ñun suñu syndicat bokkoon nañ ci ñu nga xam ne euh, porté woon nañ ci plainte euh, nguuru Sénégal pour wan leen ne lii ñuy def ni du lu jëm kër euh, bi ñu demee ci biir histoire jox nañu dëgg ndax gis nañ ne problème yi am ci système bi yëpp lu ci bëti foofu la jógee mmh. ci loolu aussi bi mu amee gisoon nañu ni ci nguur gi da daan def buy tànn ñi nga xam ne ci yoon normal bi lañ leen tànnee dafa am ñu nga xam ne dafa doon tànn liste bu nga ne mooy wax liste fàggandiku liste boobu nag nañ ko doon tànnee daanaka umpoon na ñëpp askan bi ñoom rek ñi nga xam ne ñoo doon tànn ñoo xamoon ci fu ñu ko teg daan am ñu ci daan dugal ah, ñun tànn syndicaliste ñu njortoon ne liste boobu ñu ci daan dugal ñu ci ëpp mooy ñi ñuy wax clientèle politique mais mosuñu woon am firndeel yi parce que yaataluñ ko woon ba ñu xam nañ leen di tànnee ah, ñu gis ne loolu donc moo raam ba jëm ci ñag bi tey mu agsi indi lii nga xam ne ñun ñëpp képp kuy xam ne askanu Sénégal moo la ñor munoo rafetlu lu nga xam ne mooy mbirum fraude kon ñu ngi koy ñaawlu euh, di ko dénoncer mais di wane ne bettuñu nag trop ndax ci diir bu gàddu rek amoon na fi li nga xam ne lu ñuy wax problème mu faux OS mooy ñu nga xam ne ah duñ defuñu concours bi tànnuñu leen mais ñu jël ci biir ministère boobu jox leen ay ordre de service affecté leen yu nga xam ne jaarewuloon ci yoon ba mu commencé génn mujjuloon fenn daanaka donc ñu gis ne pratique yooyu def fi bëri quota sécuritaire fooy os te daanaka daanul am daan yu ciy topp moo tax lii ñun ñu gis ne ah loolu dafay pousser nit ñi aussi ñuy jaar ci li nga xam ne mooy les mailles du filet pour mun a def naka sudul noonu mm-hmm. mais ñu gis ne liñ bu ñu def loolu ñu rafet rafetlu nag taxawin bi nga xam ne Ah, ministre bi taxawagum na ko. ñu koy rafetloo gum parce que wane nañu ne. yaa ngi naan gum ça veut am na suspicion. mu waaw ndax dañuy dañuy njortu. Uh-huh. dañuy njortu parce que ñun dañuy dañuy ñaaw dañuy préféré di ñaaw njortu ba ba ñuy dem ci ca pandaw ga. Uh-huh. parce que dañuy ragal ñu yëkkati ko parce que comme ni ñu fi yëkkati woon xam nga foo OS yi yëkkati woon nañ ko fi. Uh-huh. waaye daanaka fa mu mujjee. amul mujj lépp dafa dox rek taj tàbbi géej. ba léegi dégguñu ci ay sanctions yi nga xam ne yi ci waroon daan yi ci waroon. dégguñu ko ci. bii aussi yëkkati nañ ko moo tax ñu ne ñu ngi koy rafetloo gum. ndax def nañu enquête ñi nga xam ne ñoom ci li ñu ministre bi jox ci ay firnde. ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu mbir mi ci biir ministère bi def nañu enquête ba wane ñu ne cas de boobu moom njuuj njaaj boobu am na ci mbirum recrutement bi. yëkkati na ko te aussi ñu rafetlu ci aussi démarche bi nga xam ne ministre bi def na ko ci. ndax bi mbir mi xewee ah woo nañu ñun ñëpp ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci organisation syndicale yi. wax ñu ne xew-xew bii moo am lii laa ci fas yéene taxawee. te ñun ñëpp. kon nag am na am na communication. waaw am na communication ci ci ci ci mbiru question boobu. Uh-huh. moo tax ñu ne ñu ngi rafetloogum. Uh-huh. ah di ci àndal ak moom. ba xool nag fa muy mujjee. mais di aussi di leen di artu di leen dànkaafu ne du ñu seetaan bi yoon. bi yoon mu demee yeneen yoon. il faut que ñu dem jusqu'au bout. jusqu'au bout ko bu voilà euh, merci euh, donc euh, du du Ndiaye euh, pap Samba Pape Demba Soumaré yow yaa fi toogal élève maître yi li naka la mën a dalee ak yow nag ngay ngay réagir parce que ça vous concerne directement. évidemment Papis. Mhm. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu sama papa yi asuma yaay yi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi euh, également mooy nuyu bépp téléspectateur bi nga xamante ne nii yaa ngi jàkkaarloo man di ma seetaan euh, également maa ngi profité ci occasion bi di njaale sama mbokku étudiants yi nga xamante ne nii bërki démb la ñu ñàkk suñu euh, benn naataango également mooy nuyu bépp élève maître bi nga xamante ne nii yaa ngi jàkkaarloo man di ma seetaan maa ngi ci profité ci occasion bi d'autant plus di ziar sama papa ak sama yaay. Euh, donc papis comme ni nga waxee mbir mi boobu ba léegi sax maa ngi dégg suma kilifa yi naan fraude ñun ñun nanguwuñu ñun nanguwuñu moo boobu. Ah déjà ah ñun dañoo jàpp ni actuellement dañ ñu tuumaal la ñu deful. parce que tamit dama naan nit ki bu fekkee da nga koy jiiñ sàcc da nga war a wane preuve bu palpable bu concrete ni lii moom moo tax ma naan la sàcc nga. Mhm. wala sax su ma la nee sàcc nga war naa la woo laaj la est-ce que sàcc boobu nangu nga ko wala nanguwuloo ko donc pour man mbir mi. Euh, dafa nekk loo xamante ni nii du neexa a lijjanti parce que lu tax du neex a lijjanti euh, njiit dafa war a am noo war a doxee mais ñun bu ñu dégloo ministre bi depuis euh, début comme problème bi ba léegi départ il parlait de tricheur bon ñu dem ba ci kanam mu bàyyi tricheur di indi fraude di indi fraudeur donc mu am benn incohérence si ay propos ministre bi Euh, mais ci wàllu ci wàllu tubaab bu fekkee dañu interpréter. Mhm. dans la compréhension tricher mooy mooy frauder aussi. c'est ça peut ça peut être la même chose attention euh, il faut consulter le dictionnaire Papis. Ah. parce que ki naan tricheur. tu l'as tu l'as surpris tu l'as eu pris. qu'il soit en train mu nekk di xool ci benn. copie mais est-ce que entre tricheur ak fraudeur. waaw mën na constituer. nébuleuse wala confusion en termes juridiques c'est un délit. il faut que aussi mu leer. mais mais là c'est des cas qui son présentés. comme non attends il faut que nous euh, soyons un peu parce que. aussi uh-huh. fraude en termes juridiques. Mm la. man je me dis que comment même un ministre peut vraiment faire euh, la confusion de ces mots il doit consulter le dictionnaire ah oui <laughs> voilà donc bu loolu weesoo aussi Papis uh-huh. euh, ñuy naqarlu beneen mbir bi nga xamante ne ni am na ci affaire bi parce que ministre bi dafa tëb jóg waxtaan ak opinion opinion publique boobu ba léegi élèves maîtres yi amuñu occasion effectivement wax li nga xamante ne nii moom moom nekk. tey am ngeen ko voilà li ñu naan <laughs> quand occasion se présente il faut incha allah rabi peut-être si biir émission bi dinaa la expliquer réellement li nga xamante ne nii. Uh-huh. moom la ñu indi te moom la ñuy naq. alors dañuy dañuy dem directement euh, ci premier élément bi euh, ñu jàpp ne si lu ñu nattagum 690 euh, cas de fraude ci wàllu recrutement maître élève muy loo xamante ne mus fee am muy guléet ci wàllu éducation. Euh, ñi nga xamante ni nag ñoom la ñu euh, tuumaal muy maître euh, contractuel yooyu le maître élèves yi ñoom it bañ nañu li nga xamante ni moom mooy accusation yooyu le ba tax nag ñu war a ànd ak yéen ci reportage wala résumé bi nga xamante ni Aminata Mbaare baaxe nañu ko mu ànd si ak Thierno Laurent Mendy le temps nu ñëwaat ci plateau bi. ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août 2014 le Serigne Mbaye xam li mbir mi lu toll ci juróom benn téeméer ak juróom ñeenti fukk élèves maîtres ñu tuumaal leen ni dañu njuuj njaaj seen place euh, ci concours recrutement élèves maîtres. jàngale naa ci yeneen lycée yi expérience boobu mësuma cee xam li mel ni li xew. ñenn ñi ragal ni du ñàkk mu am ay gàllankoor ci ndongo yi ñuy jàngal. lu tax niveau élèves yi faible évidemment lu mel nii. bokk na ci am na leneen mais am na lu mel nii nga xam ne su installé wu ci école bi kenn du xamati lan la ñuy def. Mariam Soda Top bokk na ci ñi ñu tuumal ne dañu jënd seen place ci concours boobule. fraude moo rëy lu moo fraude parce que moom instant affaire bu jàllee dana doy waar parce que mën nga toog 5 ans concours boo def doo jàll. te fonction publique pour nga dugg ci léegi problème lay nekk fu ñu dugal sa tur affaire bi day clignoter. tey jii mbir yi jëree ko kaw moom muy ñaan Serigne Mbaye Thiam mu andi ay leeral ci lu mu leen ñu leen bëgg mooy la leen woo loolu rek moo tax ñu déposé recours fayuma xaalis kenn defuma recommandation si kenn pour jàll kon man bu ma waxee fraude dina ma jaaxal. ci noonee yaayam di ko feelu. dama koy laaj bac bi kon kooku nga xam ne mënul bind mënul liir fan la ko jëlee. moonte loolu teewul eh, ki fi nekk ministre de l' éducation nationale eh, te fi mu tee. fi mu nekk nii kon liggéey bi def nañ ko pour ñi leen war a remplacer incha allah ci fan yi di ñëw ci anam bu leer. danañu publier liste ñi leen war a remplacer. histoire boobu nag xale yi nga xam ni ay élèves lañu ñoom tamit am nañ ci seen baat. amuñ niveau boobu noonu ndaxte ñoom bu doon ñoo ko liggéey seen bopp jàll sax ñu ne waa mais dañ fay. jàngalekat warul tricher. fi mu toll nii Serigne Mbaye Thiam di xam ne nii eh, ci wàllu administration ak eh, ci wàllu pédagogie eh, xam nañ ne mbir yooyu lu am la li des kay mooy ubbi enquête pénale ngir xam kan ak kan moo ci dugal loxoom lii nag di mbir moo xam ni rafetul benn yoon ci njàng mekk njàngale mi fii ci senegal voilà merci euh, Aminata ci li nga xamante ni moom la ñu léegi. alors ah, ñu ñëw si madame Faye euh, euh, Marie Siby di conseiller foofu ci ministère bi euh, gis nañu ah accusation la ñuy refu réfuté ko yow ngay wax si baatu ministère bi aujourd'hui si lan ngeen taxaw ba ne lii fraude la am na parce que ñoom nee nañ amuñu amul am benn preuve bu koy confirmer xam nga yaakaar naa ne responsabilité ministre de l'éducation toll na foo xam ne lu muy def déclaration publique dina ko càmbar seet ko natt ko te comme ni mu ko waxee tëbul rekk woo syndicat ne damay wax ak yéen woo journaliste yi ne dama leen di informer am na fu mu jaar te yaakaar naa ne ci service administration lañ nekk mu nekk quand service bu structuré am ku nekk fa nga war a yëngu ak fa sa euh, activité war a yem biñ ko waxee ne ci concours bi kat am na lu ci ñuul moom en tant que ministre de l'éducation dafa jël matuwaayam ndax am na service bu ñuy wax inspection interne ñoom la woo ndax ñooñu loolooy seen liggéey ma jaar fa sax di nuyu bu baax waa service boobu ci liggéey bi ñuy def bu rafet bi ñuy def actuellement ci système bi ñoom la woo ne leen man kat dañ ma ne ci biir recrutement élève maîtres yi am na lu ci xew dama bëgg ngeen dem yërlul ma ba ñu demee ba ñu nee saraax ci foofu commencé seen liggéey ci la ñu gis ne effectivement am na ci lu tey xel ñu woo ko ne ko lii kat am na ci lu nga xam ne lii xel mënagu ko nangu mu ne leen wax dama bëgg ngeen duggal ma ba ci biir seetal ma fu nga xam ne fii problème am na fa ngeen génneel ma ko ci loolu la waa inspection interne def seen liggéey ndax inspection interne day wuyu turam mooy ka nga xam ne kii mooy seet la ca biir la ca baax mu ne baax na la ca baaxul mu ne lii kat baaxul nañ ko corriger et encore une fois inspec inspection interne de police liggéeyam lay def ci lañu jël ñi nga xam ni ñii ñëpp nee nañu ñii jàll nañ ci concours bi ñu jëlaat seeni kayit xool note yañ leen jox xool machine bi note yamu leen enregistré ndax méngoo na ma dellu si waat tuuti rek sànq euh, sama doom sumaare dafa ne fraude ak triche Mm-hmm. yaakaar naa ne boo demee ci dictionnaire u synonyme yi falsification triche la mm-hmm. falsification mën nañ ko méngale tam ak fraude kon ba tey rek am na mbuxum quelque part mm-hmm. bi mu càmbaree kayit yi gis na ne lañu wax ne am nañu ko am ci ay note ci machine bi nga xam ne moo tax ñu ne jàll nañ ak la ñu wax ne moom lañu ñu laaj am effectivement ña corriger la ñu def ci seeni kayit méngoowul mu xool ko muy deux mille euh, cinq cent quarante cinq copies je pense mm-hmm. deux mille cinq cent quarante cinq copies yëpp la ñu jëlaat benn par benn xoolaat ko natt ko ndax bu fekkonte ne dañoo def lu ñu ne xëy na dañ naan diw ak diw ak diw la ñu jël mais dañoo seet ñi nga xam ne ñi not ya leen correcteur bi jox méngoowul ak not bañ leen defal ka leen xayma bu ne kii benn la am boo demee ca machine ba leneen nga fay fekk lu bokkul ak kaleen xayma la mu wax ñooñu la génne parce que nag foog naa ne degré de responsabilité am romb na fu muy taxawee rek di wax ci lu teguwul fenn te inspecteur interne mhm. nekkal lu fa Serigne Mbaye Thiam mhm. inspecteur interne administration sénégalaise la fa nekkal en résumé am ngeen ay preuves concrètes yoo xamante ne palpable bi muy laata woon nit ñi mhm. te diir la def nag may dellu siwaat sànq ci li ñu wax mooy diggante bi ñuy pare concours bi ak bi résultat yi di génn xam nga ci gouvernement la ñu nekk te gouvernement dafa am li ñuy wax euh, mission wu arbitrage mission wu xool entre li nga soxla ak moom li nekk ci gafakaam naka la koy lijjantee ba yow nga am li nga soxla mhm. waaye mu méngoo ak li nekk ci gafakaam te mu war la ko jox mhm. loolu moo tax ñu doon xaar arbitrage pour xam ñaata poste budgétaire la ñu am mhm. xam ñooñu ñaata lañ ci war a mën a jël ndax du ñu jël koo xam ne duñ la mën a fay diir bi loolu rek la du leneen loolu rek la waaw voilà merci merci Marie Siby euh, euh, euh, Samba Diakhaté dama la bëggoon laaj yow mi nekk syndicat inspecteur éducation Euh, li naka la war a mun a amee ci ci ci ab système fraude ci concours comment comment ça peut arriver naka naka lay faille bi légèreté comment ça se présente. waaw ñun li ñu ci gis papis euh, li war a mën a war a lii benn mooy ni ko ministère yi doxale ndax euh, concours ku nekk xam na ni responsabilité première état la mm-hmm. mais su fekkee. Euh, dem nañu bay wax not yu ñu changé déjà problème am na te comme ministère moom mooy responsable bi effectivement euh, dañ koy jàppee noonu daal que ni légèreté moo am quelque part euh, mais loolu ñu koy ju ñi nga xam ne ñoo ko mën a apprécier comme ni ñu ko waxee mooy juge bi moom mooy seet ki def ak ku deful mais ci fay yi ci fay yi papis yaakaar naa ne Euh, ni ko madame euh, euh, maanaam Marie Si bi waxee madame Faye ci fay yi wane nañu ni ay notes changé nañu ko ci ay ordinateur mais mën nañu poser wu des questions parce que boo amee notes ñu changé ci ku ne xam na ni machine aussi dafa am lu ñu naan marge d'erreur possible lan moo ñu waree ni kon tey amu ci donte la benn élève maître boo xam ne tey marge d'erreur mënu ci am te bu amoon tey day bokk ca ñu jàpp ni dafa fraudé kon source bi ñu ko vérifié muy ordinateur mu doon loo xam ne source d'erreur mën na ci nekk source boobu déjà dafay poser problème euh, beneen bi ampleur bi euh, ci loolu lay ampleur bi lay indi ndax euh, fan la yem ndax cent 697 <coughs> ñoo ngi ci war a nekkuñu ci loolu it dañ ci daal di bëgg a parce que effectivement noor ñuy changé ci machine la ñu wax mais su fekkoon loolu dañ ko imprimer mu doon un document boo xam ne dañ ko signé mu doon source de vérification bi loolu dana marge d'erreur da ciy da ciy dañ. Mm-hmm. loolu daal problème la. beneen problème aussi mooy validité concours bi. ginaaw ba mu amee ndax ku ne xam na ni bu ñu formé aussi ay maître ay weeri weer jàpp nañu ministre bi euh, il fallait bu choisir mais tey euh, ñu bari dañu jàpp ni concours bu demee ba foofu li doon dëgg mooy invalider concours ba parce que maanaam concours bi ci boppam moo dul baaxati hmm. xam nañu ne jafe-jafe yi tax xëy ministre bi jàpp ne bu ñu mën ñoo recommencer à zéro mais lu ci mënti am daal. Mhm. Euh, taxala suuf ci boppam moom. Mhm. moom moom léegi dafa mënatul a baax. alors dès l'instant que am na fraude. am na fraude euh, euh, doyen. oui oui oui rapidement rapidement oui. parce que bu fekkente ne dañu dañuy wax ne erreur bi ci ordinateur bi la nekk. Mhm. yaakaar naa ne il faut que ñu leeral xam nga li ma la wax mooy. la nekk ca note ya ak la nekk ca machine ba méngoowul te tey ordinateur xereñ nañ ci xereñ goo xam ne. ak ni ñuy liggéeyee ni ñu verrouillé ni ñu tëjee système bi sàmba Jaxate mii bu ci dugalee benn mot dinañ mën ne bés tel waxtu sàngam Samba Jaxate yow yaa duggee logging bi yaa def nangam noonu lañ ko jàppee ay capture d'écran la ku ne la nga def xam nga ko te ki def weddiwul avoué na ki def avoué na mhm. donc may wax ne encore une fois ñun mhm. li ñu def dañ koo teg fu leer nañ ndax mënuloo jóg nag ay doomu sénégalais yu taxaw rek nga ne danga leen di tuumaal ci ay wax dañ koo seet def moom xam na li may wax ci mbiru note yi xam na ni ñuy corriger xam na kay joxe not xam na souche xam na euh, nu mu tuddati relever de not bi xam na aussi ne dinañ ko jël ci ordinateur waaye boo ko jëlee ci ordinateur gis ne ba sàngam heure nangam manipuler waat nañu not yooyu bokkul ak ku def erreur ci bi muy dugal. muy dugal waaw. voilà loolu moom dama bëggoon mu leer précision la woon voilà validité concours bi aussi li muy wax. Mhm. concours bi xam nga bu fekkonte ne dañ ne fuite dafa am. épreuve bi am na ñu ko amoon bi ñu koy def bu boobaa dinga mën ne xëy na kon fuite am na xamuloo kan ak kan moo jota jot ci épreuve bi balaa ñuy dem. Mhm. mais dañoo def dans les règles de l'art ñu corriger ko normalement. bi ñu ñëwee ba ca cappaandaw ga fa la problème bi nekk ñun dañu situer problème bi fi mu nekk moo tax ñu jël yooyu décision bokkul ak examen bu am fit comme ni muy amee ci baccaloria wala feneen mhm. déedéet mhm. fii xam nañ ne liggéeyu nit la loxo nit a ko def mhm. loolu mooy wax ji loolu dama bëgg mu leer voilà euh, doyen euh, Momar euh, Jim Cissé la c'est pas le parent d'élève ça c'est l'inspecteur doyen cas yu mel nii naka nga koy commenter ñi ñu dem ba bay dund ay ay fraude Euh, échelle bu par exemple. waaw euh, su ma jàmm bële Soumaré dégg naa muy wax naan luy raam ci ñag bi la jëm. Mm-hmm. eh bien euh, raam ci société Sénégal dama ciy dellu si. valeur moo amatut. sénégalais dafa gëmatul li nga xam ne moo doon suñ cosaan am jom fas liggéey. def lu jub njub boobu moo jafe ci réew mi fi mu nekk à tous les niveaux nag mm-hmm. loolu foog ñu seetaat suñ bopp xam ne lekkool mooy indi tabax nit ku jub tabax citoyen bi ñuy xaar mm-hmm. mais kooku di tabax nit nekk jàngalekat nekk éducateur c'est pas seulement l'enseignant mm-hmm. mais c'est l'éducateur le model ki nga xam ne képp koo xam ne kii yaa ngi seet royukaay jàngalekat boobu moo waroon doon royukaay kooku buñ koy tànn dafa am tànninam suñ ko wàccee rek musiba am te eh, li Marie wax léegi ne ministre bi yónnee na inspecteur interne seet nañ càmbar ba mu dajale loo xam ne li firnde la dafa woote bi syndicat yi ñëwee acteurs sociaux yeneen ñëw parents d'élèves toog ñun ñëpp ñoo toogoon ca salle ba mu ne lii moo xew e rafetlu nañ ko waaye ni ko Sudes waxee des na des na njaw des na xambin ndax nañ dem ba ca cappaandaw ja nañ ko toppaat des na ndax kat Marie wax na ko bi nga xamee ne seet nañ ne note yi nga xam ne jury bi joxe na ko ak li ñu reporté ci machine bi du noonu mais est-ce que jury baa ngi ci biir oo nañ leen vérifier ak ñoom ñun amuñ encore ces éléments moo tax ñu ne ministre bi tàccu nañ de waaye nañ ànd dem ba ca biir. voilà dañ dem ba. en ah, ah, demee ba ca biir. Ah, yaakaar naa ne. Mhm. su nekkee ne preuve am na mais kenn dootul mën a wax dara. Marie wax na ne sax eh, ki nga xam ne tuumaal nañ ko dem na bi ci boppam reconnaître mais reco ah alors voilà rek ko defal mu ngo mu signé ko ne moom moo def. voilà reconnaissance boobu c'est la c'est la mère des preuves des preuves kon nag <laughs> dinañ seet loolu mhm. waaye nag du tere ñu ne gannaaw ñu ngi bëgg a faj si feebaru système éducatif mhm. ñun ñëpp nañ ut saafara dem ba ca biir dina ñëw ci saafara yi mooy mooy moom mooy solution yi ce sera euh, ci kanam alors euh, Doudou Ndiaye euh, Pape Demba wala Samba Diakhaté soulevé ne invalidité ñu invalider concours bi est-ce que loolu di nga ci adhérer par exemple non ñun si des mënuñ d'accord ci loolu parce que dañuy gis ne su boobaa danañ tooñ sénégal yi nga xam ne seen yoon nekku ci def nañ concours bi ni mu waree teg ko ci yoon mais dañu dem ba ci biir ñu am ñu ci dugal seen loxo ñu ci waruloon dugal seen loxo soppi ci liñ ci warul soppi kon ñu yaakaar ne euh, ñooñu dugal ci seen loxo ñooñu la ñu war a téye seen loxo génn ci seen loxo mais aussi damay ragal ne bañ ñu ne parce que dégg naa conseil ne moom nee na avoué na mais dama jàpp ne man euh, fraude bu am ampleur bi du doon moom ñoom lay doon mënul doon niveau de responsabilité yi dafay bari donc il faut que moo tax ñun ñu ne ñu ngi taxaw di tàccu mais ñu ngi taxaw di surveiller parce que dañu bëgg processus bi képp ku nga xam ne sa loxo tax na ci rek ñu firnde ne yow tax nga ci te nii nga ci taxee te su boobaa ñu jox la teg la daan yi nga xam ne moo ci war ndax comme niñ ko waxee man dama jàpp ne même élève yi sax Euh, mun nañu jàpp ne quelque part am na benn parti bu nga xam ne ñoom aussi ay victimes lañ ci mbir mi ndax su fekkee ne administration na mu waroon tëddee tëddee na ko du am possibilité xal élèves yooyu di mën a jaar fenn pour mën a joxe guerre wala nga mën a def benn pexe bu nga xam ne ku warul jàll dana jàll loolu lu ñu war a delloo si mooy ñu xoolaat tànnin ñi ni ñuy tànnee nit ñi ak responsabilité yi ñuy jox ñu xool ñan lañ ko war a jox parce que dama yaakaar ne ñañu teg ca béréb yi nga xam ne fa la ñu war a tànnee su fekkoon ñooñu mat nañu lañu ñu war a mat konoon peut-être lii ñu dund nii duñ ko dund. Hmm. kon loolu day interpellé waat état bi mu xoolaat ni ñuy joxee poste de responsabilité yi. Hmm. parce que bëri na yenn poste yi nga xam ne ah yaama neex dafay dugg ci faline bi am. Hmm. te yaama neex fu mu dugg rek suba dina mën a indi yenn erreur yi. moo tax ñun au niveau du sud-est comme suñu liggéey mooy ñun dañu ne nañu taxawu école ba pare doog a taxawu liggéeykat yi moo tax fu école nar sooxee rek. ñun dañuy nekk sentinelle taxaw di xool moo tax ministre bi wax nañ ko ne ko jaajëf ci li nga génne li parce que ñun xam nañ ne ci li ñu amoon que ne doon na am yu mel ni bëri woon na di am ci système bi mais daanul jëm kaw te encore ma wax ko aussi ay njort yu ñu amaat ay njort la que ne niveau de responsabilité dafa am ñu nga xam ne ñu ñuy tuddee borom loxo yu gudd yi ñoo yegg fenn fi ba mbir mi doog mën a am. moo ñuy wax les bras longs. les bras très longs wax man très parce que bras long am na mais bras très long am na te dañuy njortu ne bras très dafa am ci mbir mi moo tax ñu ne nañ ko saytu génne lépp mu leer askan wi xam parce que am na lu ñuy dégg ci ci société bi lañ bokk. am na lu ñuy dégg. lu mel nag li ngeen di dégg par exemple li ñuy dégg mooy am na mm. ay comme am ay liste yu jóge ci béréb sàngam list yu jóge ci ñi ñu njort ne ci nguur gi la ñu bokk dañuy njort ne am na liste yi nga xam ne ñi bokk ci nguur gi ñoo ko joxe. te ñu am preuve ne daan na am ci jamono daan na am ci jamono ñuy nekk ci nguur gi ñu daan am ay pàcc ci ñi nga xam ne noonu lañ doon recruter nit ñi. mooy quota bi ñuy wax quota quota boobu quota sécuritaire loolu. Hmm. ñuy joxe ministère nangam béréb nangam doon nañ jot sax ne am na suñuy naataangoo syndicalistes yi yu ci daan am seen cër. ñu yàgg di ko ñaawlu au niveau du sud hmm. ne loolu jaarul yoon. parce que dañ ko war a teg yemale Sénégal yëpp. ñi nga xam ne ñoo koy yelloo place yi. ñu jox leen place mais loolu dafay euh, euh, fekk si valeur bi bi euh, doyen Momar di wax valeur yi. valeur crise de valeur moo am moo tax ñu ne ci assise yi. même syndicaliste yi nee nga ñu ngi si ñoo. am na ci parce que syndicaliste bi ci société sénégalaise lañ bokk. Mhm. crise de valeur boobu muy wax. Mhm. jikko yu ñaaw yu dugg ci askan ba yàqu ko. mënul bàyyiwu fi syndicaliste bi bàyyiwu fi politicien bi bàyyiwu fi élèves bi bàyyiwu fi kenn ci biir société bi yëpp la dugg. Mhm. moo tax ñun ci si des bi ñu jàngat. ci jëm ci assises yi am na téere bu nga xam ne euh, euh, fan euh, def nañ ko jébbal ko waa assise bi dafa jëm ci yooyu wàcc bu ci nekk ñu jàngat ko wax ci feebar yi ci nekk wax ñi li nga xam ne moom lañ jot ne moom mooy saafara yi nga xam ne moo koy dindi mhm. ndax suñu ko dindiwul aussi danañ jàpp ni tey mais mhm. suba njott nañ ne parce que ñii fi nekkoon ci administration ñoo fi nekkaat ministre bi mën naa dem mais administration bi ña fa nekkoon ñoo fi nekkaat ña doon def loola ca jamono ñooñu ñu ngi fi ba léegi. Ah. moo tax ñu war a taxawaat càmbaraat suñu organisation suñu administration ba li nga xam ne mooy li ciy feebar ñu dindi ko ci. Ah. ba mun a solaat ci nit ñi jikko yu rafet yi nga xam ne dina tax lu mel nii. Ah. dootu fi am ci système bi. voilà euh, du du Ndiaye bu bu des euh, euh, Pape Pape Demba Soumaré yow mi ami bokk amical élève maître dégg nga fay Faye relevé na li nga xamante ni moom mooy constituer preuve yi mm-hmm. déjà aveu bi. li ñuy mm-hmm. wax c'est Euh, la mère des des, des preuves euh, euh, Ndiaye du du ne moom du moom ñoom la war a doon parce que ampleur bi dafa doy waar yéen la mooy seen argument pour <laughs> parce que bu refusez que ne loolu loolu amul. mais si lan ngeen ko teg finalement. donc merci beaucoup Papis damay delluwaat ci sama góor gi li mu wax Cissé Cissé bi mu ne dañu war a am jom liggéey am fulla def lu jub loolu nañu xamee woon ndaw Sénégal ma ñëwaat encore ci benn mbir bi nga xamante ni madame fay wax na ko mu ne affaire bi dañ ko càmbat càmbat ko càmbataat ko mais man mënuma concevoir loo càmbat même bu doon benn fan la sax nga xëy suba génn benn liste boo xamante ni kii mu ngi tudd Ibrahima Ba nga ni da nga ci santam wëlbatiku si beneen liste bi tudd la ko Ibrahima sekk bon nga publier benn liste ñëw à de passage may rappelé waat ni je le président de l'amicale du CRFPE de Thiès mais également je suis le coordonnateur national des élèves maîtres mu mmh. ñëwaat ci beneen mbir mooy lan liste bu njëkk a génn boo ko càmbatee xool ko damay jël fii le cas de voilà Ndeye Codou Fofana fii mu ngi sant Fofana nga ñëw ci liste bi ñu ngi ko santale Guèye Ndeye Codé Guèye waaye léegi lii moom mooy lan nga ne nag léegi càmbaat nga ko kon dafay mel ni monsieur Diakhaté marge d'erreur boobu mu doon wax mi ngi feeñ bu loolu weesoo aussi ma ñëwaat loolu weesoo dama la bëgg woon rek incohérence ak euh, incompétence bi nga xamante ni am na ci ministère bi mm. parce que pour man tey jii li ñu war a njëkk wax mooy lan mooy mbay Thiam doit démissionner parce que tamit bruit bu taju tajulee du am njariñ nga génne benn liste nga ni Thiès 19 cas moo fa am 17 arabisants 2 francisants nga toogaat ba mu neex la nga xëyaat suba ne damaa juumoon génnewaat naa beneen liste léegi 17 arabisants yi maintenir naa ko mais léegi 87 francisants ngeen am nga jógee foofu nga dem Saint-Louis c'est le même scénario qui se répète boo jógee ci loolu yëpp ki nga xamante ni dañ ko tuumaal nañu waxante dëgg boo demee Saint-Louis les 177 cas yi fa nekk yëpp yàlla def na ñi ce sont des maîtrisards mais nit ki mënoo tricher tricher ba dem université ah ni mu metti université bac mën naa ko nangu mais mënoo tricher université jàll donc mbir mi il faut ñu situer responsabilité yi beneen mbir bi nga xamante ni dinaa ko indiwaat mooy lan mooy euh, ministre bi mi ngi faral di wax naan deux mille cinq cent quarante cinq élèves maîtres <coughs> ce qui est archi faux est deux mille cinq cent soixante douze élèves demal Thiès y' a vingt sept élèves maîtres yi nga xamante ni préscolaire la ñu nekk. ils n'ont pas fait le concours kon quota sécurité dugg na foofu kon Mbaye Thiam li muy nekk di def actuellement dafa dafa dafa dafay nax Sénégal yi non non non non nous nous sommes des responsables euh, góor gi li mu wax sax yaakaar naa boo xoolee ñi nga xamante ni ñooy feeñ ci mbir mi ba mu commencé ba léegi di nga xam ne ñi sont des responsables donc bu fekkoon sax fraude bi ñuy wax am na élève maître bi il n'est pas engagé parce que moom demul yokk notam élève maître bi boo ko jàppoon ci examen bi muy tricher su boobaa moom mën nga koo mën a sanctionner mais élève net bi jàppaloo ko fekkloo ko muy tricher nee nga dañoo gonfale ay notam te gonfale nat yooyu ñuy wax dafa njëkk wax ni dañoo dañoo fay mais man mënuma concevoir koo xamante da nga nekk université di jàng sonn coono université amoo loo lekk jëlee la fa nga ñibbi sa dëkk xëy suba nag am nga 400000 wala 600000 yi nga xamante ni moom ngay fay pour réussir concours nañu waxante dëgg donc loolu xel attanu ko. Euh, ba mbir mi aussi moo waxaat ko tuuti ci wàllu 27 euh, élèves maîtres yi nga xamante ni ñi ngi Cees. te defuñu concours bi préscolaire la ñu nekk je pèse bien mais moo man Thiès laa nekk maay seen président amical donc ils n'ont pas fait le concours kon côté sécurité bi nga naan dañ na dañu moom moo ngi koy appliqué et puis ñi ngi déggaat encore de par les que am na déjà ñi nga xamante ñi ngi réclamé 300000 400000 pour liste d'attente bi muy wax mu dugal leen ci ba pare démb mi ngi naan 700 et quelques moom moo nekk ci liste d'attente ne woon et quelques euh, têtes nekk ci bi donc bu bu ma ko xoolaatee ba ci biir euh, mhm. dafa mel ni Serigne Mbaye caam moom dafa dafa ñëw daal pour mhm. effectivement tànk ñu rek sànni ñu s'il y a des problèmes politiques à régler mhm. na ko dem régler ji ko ah ñi mu ko amee parce que waxaat na ci rajo bi mu ne sama yaay sax newoon na ma kër ma jabeel mënoo fee jël kenn mu jàngalee moom moo tax kenn voté la ba ñu gañe la mais su amee problème yu muy réglé nekkul si ñun la koy réglé na dem réglé ko wax ñi nga xamante ni nii ñoom ñoom ñoo ko indil problème boobu ñoo ko indi problème voilà c'est ça voilà merci voilà waaw oui vas-y euh, vas-y euh, waaw kon Papis euh, dafa am rek mu bëggoon leeral d'abord. Mhm. su may waxee validité concours bi euh, newuma maanaam loo xam ne la euh, nii rek la waroon def dama ni lu ñu war a xalaat la mbir bu tollee fenn fi nee naa ku mën nañu comprendre ministre bi nii li ñu investir ci seen formation. Mhm. nii la koy traité respecté nañu choix am mais concours bu demee ba fenn fii ba ñuy wax ni quand même 690 un cas tax nañu invalider ci concours mais moom dafa jël option euh, mais ñuy wàññeeku di wax ne euh, ci moyen yooyu loolu même bu dee machine bi jàpp nañu diw changé na ci du tere marge d'erreur mbiru machine la mm-hmm. euh, léegi nag lu jëm ci ni ko ni ñu traité mbir mi dañuy fàttali nii bi mu amee effectivement ministre bi woo na syndicat yi waxtaan ceeg ñun euh, ñu fàttali nii li indi mbir mi li ko feeñal dëgg dëgg dëgg mooy ay rapport yoo xam ni CRFP dañ ko def rapport de pour wane ni am na ay élèves yoo xam ne lu mel ni arab lii arab sax mënuñu ko mënuñu ko lakk kon ñu wax ni foofu la jóge léegi nag est-ce que Serigne Mbaye Thiam daf ko def parce que dafa bëgg a jubbanti ou bien ndax daf ko def parce que xam na ni l'État est très organisé aussi loolu xam nañ ko ou bien xam nañu ni bu ko deful it dana mujj dal ci kawam loolu yëpp ay question yoo xam ni sañ nañ ko posé tey parce que ñu dañ fi nekk pour leeral loolu rek moo ñu fi indi mais daal euh, rafetlu ñu en tout cas li mu ci def mais ndax daf ko def parce que yooyu li ñu naan li tubaab naan il avait dos au mur wala daf ko def parce que dafa bëgg a si système bi ou bien daf ko def récupération loolu nag ay question yoo xam ne lu jar a posé lu jar a euh, bëgg réagir Marie lu tax voilà allez euh, euh, réagir jot na <laughs> parce que nañ waxante dëgg gis nga am na loo xam ne nit ki ci démarche ngay mën a xam ban façon nit la gis nga bi mu ñëwee yaakaar naa ne duudu même Samba Jaxate am na lu ñu gis xam nga nit ku ñëw ne la man biñ ma joxee lii ne ma def ko dama ne temps bi ma fi toog sénégalais yee tax ñu teg ba fi senegale yi laay liggéeyal awma ci mbokk awma ci xarit tey ci démarché boobu la nekk les considérations politiques man duma ci dugg li ma la mën a wax mooy bi mu constaté ne problème am na la mu war a def en tant que ministre de l'éducation la def mooy woo ay service d'inspection ne leen dem leen seetali ma lu fa xew et may wax de passage ne du ci affaire élève maître yi la commencé loolu ci biir système bi am na ñu ci xam dara ay nit a ngi remboursé tey lu ñu jëloon te moomuñu ko ci biir système bi am na ci ñoo xam ne tey wañ nañ seen loxo teggi leen fa ñu nekkoon ndax lañ doon def dëppoowul ak yoon kon man dama ne ci logique boobu la ñu nekk ñoom syndicaliste yi ñoo ne yàgg naa problème yi yàgg naa am ci biir système bi kon yaakaar naa ne bu problème yi yàggee am ci biir système bi nga ñëw taseek tey koo xam ne nee na man dama fi nekk ngir njëriñu sénégalais yi am na yoo xam ne doo ko bàyyi mu jàll bu dee li ngay wax dëgg la ci yow. Mhm. te ci logique boobu la nekk. effectivement talaata bii di ñëw woo na képp ku nekk ci CRFP yi nee na leen nañu ñëw ak seeni liste parce que li ngay wax ni rapport de carence ak yeneen information yu ñu taxaw mhm. la ca des ñun. dañuy toog xool fu muy mujj mm-hmm. waaye nag <coughs> donte ñooñu dugg nañu tey ba ñu ne suba la ñuy def examen soo gisee ne ñii la leen dugal jaarul yoon mm-hmm. ña waroon a dugg xëy na ña ca biti mm-hmm. yaakaar naa ne sa diggante ak sa tëraayu bàmmeel sax war na laa may nga dellu waat ca la fa la fa nekk ndax mënuloo ka am waroon a dem nga xañ ko demam ka fa warul a nekk nga teg ko fa ne maa ngi liggéey yoon dañu ne rupture la ñuy xaartee ci Sénégal mhm. xam nga lu metti ñu nag pour payer le prix de la rupture de la rupture dafay metti kooku beneen beneen kii la dañ si dañ si ku nekk si ligne bi dañ koy euh, privilégié après euh, Samba Diakhaté moom mooy moom mooy euh, jël parole bi alors sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la laaj naka nga tudd ak fan ngay wootee ñu ngi lay déglu noo tudd ak fan ngay wootee waaw ñu ngi lay déglu Modou Diouf. waaw man de maa ngi nuyu ñi ci plateau bi yëpp di la nuyu yow mi présenté émission bi te li rafetlu émission bu baax a baax di wax ñetti cas rek muy diggante ministre ak enseignant euh, ak euh, les élèves ñett ñooñu dañoo seq mbir mi ba noppi kenn ku ne dafa dafa defar li mu def. Euh, ñiy jàng jàngunu ñi leen di jàngal jàngaluñ leen ñi jàngulu jàngulu muy paradélève ñoo ñu fi toog ndax sa doom boo koy jàngloo bul fuyok sa doom boo koy jàngloo war nga ko teg ci dina dynamique bu normal bu nekkee ci kër gi ba muy dem eh. eh, école boo ko defee bu demee école dina xam li ko war dina xam ni war a def soo ko defulee day am problème toujours yow mi nga xam ne yow yaay enseignant bi ñu jël di la jàngaloo fi la fay ay droit yu mat sëpp war nga xam di la jox responsabilité lan la jox kàddu askan wi lan la jox war nga ci war nga ci dawal responsabilité bu rëy am am pasteur ci li ngay def def comme sa doom ji ngay borom jàngal sa doom li nga koy def ndax xam nga ne li xew ci éducation ren ji tegewul fenn tegewul fenn jaarul yoon. ministre de l'éducation tam war na xoolaat bu baax li muy def bañ ci wut parparloo bañ ci wut leneen lu dul rek te doxal yoon lu ko dal lu bari ñàkk doxal yoon moo ko ko teg ñun nag ñu ngi jégalu ci wax ji di leen remercier ñëpp ne kenn ku daal xool li mu war a def mu def ko loolu moo leen di jëmale kanam mais bu fekkee ne yéen ñëpp kenn ku ne bal li mu war a def toujours ci réeroo ngeen dëkk nag kenn ku ne xool li mu war a def mu def ko. lu buñ ko defee luñ ko def mu taxaw lii waruñu ma ko def ñu dindi ko mu jeex mu ñëw jaral ko bakkanam nag wasalaam. Euh, Samba Diakhaté euh, yow yaa waroon euh, xëy na dangay rebondir. ñu tënk rek. Ah. ñu tënk ci poñ boobu. poñ boobu ay jàpp uh-huh. naa ni it am na yeneen poñ yoo xam ne war nañ ci ñëw. waaw quand même. pour ñu avancer tënk bi daal. <laughs> Uh-huh. li ci mën a jàpp daal mooy dañuy waxaat rek nii lépp loo xam ne ministre bi. dox na ko ngir maanaam jubbanti ngir leeral moo war euh, li ñuy ñaan nag mooy fexe ba euh, du ñu xaarati di ñaan ba mu toll fenn fii ñu koy soog a def saytu boobu war na di ko def dès le départ maintenant que xam na ko euh, beneen bi aussi mooy lu ñu war di yëgoo la il faut que les acteurs sociaux quand même di d'accord nañu ne état moo war di décider mais aussi euh, bu yëgoo amee dana tax aussi tey lu mel ni FENAPES euh, lu mel ni tey COSIDEP lu mel ni organisation syndicale war nañu am droit de regard yu bari dina tax aussi euh, même bu dee agent administration la du mën a def yenn yi. parce que xam na ni aussi maanaam li ñu naan les partenaires sociaux ñoo ngi fi di ko contrôler. loolu daal jàpp nañu ni lu ñu war a gën a góorgóorlu. muy coordination bi dama bëggoon ñu tëj malheureusement parce que on n'a pas voulu avancer malheureusement temps bi nu a rattrapé léegi conclusion bi. en en une euh, phrase peut-être wala voilà, résumé ci wàllu niveau bi euh, doyen euh, Momar euh, Ncim Cissé niveau enseignant yi lang nga la nga ci wax euh, pour tëj. <laughs> niveau bi baaxul. solution solution mooy di leen former. alors tàggat leen ba buñ génnee ci seen centre de formation yi nekk des enseignants émérites. émérites li koy indi nag mooy gouvernement état. tant que nekku fi nekk doole mhm. duñ dem fenn deuxièmement mooy organisation mhm. ministère dafay organiser mhm. organisation mooy ki nga xam ne moom ngay teg ci bërëb mu mut ko. mu mut ko alors li ci des mooy méthode. voilà looy booy liggéey na nga am yoon. boo xam ne boo ca jaaree doo alors euh, euh, euh, Doudou Doudou Ndiaye si niveau bi ah pour conclure émission malheureusement jeex na. malheureusement jeex na fu nga xam ne ñu ngi. laaj poñ bi nga xam ne moo ëpp solo. ëpp solo waaw parce que les gens n'ont pas voulu avancer. niveau bi c'est un peu ci niveau boobu sax moom moo ñu permettre ñun aussi ñu wax benn suñu benn tiitaange. Mhm. Euh, di interpeller état bi parce que euh, niveau bi daf ñu soxal ba nga xam ne bëgg nañu parce que xam nga ne daanaka élève maître yii ni leen dese seen formation bëreetul. Mhm. ñu bëggoon aussi moom mu jël matukaay yi war ba nga xam ne ñi ñu war a remplacer aussi mhm. seen formation du am sooxe. Mhm. parce que formation boobu bu sooxee rek. day gën a nasaxal niveau bi nga xam ne moo war a ñëw. mooy donc ñu bëgg niveau bi li koy indi aussi ñu jàpp ne. condition de recrutement yi d'abord ci lañ koy njëkk a demee. nan la ñuy tànnee ñi nga xam ne ñoo war a jàngale. mu doon jàngalekat yu nga xam ne ndaw yu nga xam ne yu mucc ayib yu nga xam ne seen xam-xam méngoo nag liggéey bi ñu leen war a sos uh-huh. ñu paree aussi ñu defalee leen ñaari formation d'abord benn bi ñuy wax formation initiale mooy formation de base bi nga xam ne mooy dëgëral li ñuy jàngale uh-huh. mais ñu bañ cee yem ndax aussi bu ñu demee ba dugg commencé liggéey bi aussi ñu accompagner leen ak lu ñuy wax formation continuer formation continuer boobu mooy tax ñuy gën a dëgër. di mm. gën a mën li nga xam ne. di gën a mooy seen mooy seen métier. Euh, euh, Pape Demba Soumaré euh, niveau bi sur les enseignants. voilà li ma ci xaw a jaaxal sax. Pape Pape da ngay da ngay tënk nag par rapport ak niveau bi. parce que ñu ngi indil dèjà problème yi nga xamante ni moom moo amoon bien avant que ñun ñuy ñëw sax EFI. Mm. maanaam résultat yi génn ren ñu ne léegi voilà lii moo tax nag. résultat yi bon mais élèves maîtres yi nekk EFI seen yoon nekkul ci loolu il faut tamit mu leer nañ donc élèves maîtres yooyu seen yoon nekkul ci niveau bu faible ak bu faible beneen problème bi aussi naa ko waxaat ministre bi mu leer mooy que ni ñun suñu évaluation yi njëkk a def la quasi-totalité des élèves maîtres yi nga xamante ni sont mais notes yi ñu am ki si gën a tuuti les treize la am dégg naa ko mu naan ñee nañu ay treize la ñu am ay quatorze non est-ce que ñoom du ñu am lu ëpp 13 mais est-ce que mën nañu am lu ëpp 19 ba pare liste d'attente boobu ñun euh, mënaguñ ci wax damay lancer appel euh, à monsieur le président de la république son excellence Macky Sall que aussi problème bi am na na taxaw mu arbitré. mu arbitré parce que aussi bu arbitré wulee. Ah. li nga xamante ni xew na barki Demba Ndiaye université ñëpp gis nañ ko. Mm-hmm. wax naa ko encore une fois de plus pas bi jaar fi sànq nee ko man Euh, voilà on a compris Pape Pape Pape Demba euh, rapidement euh, moom mooy tëj parce que moom moo ubbi woon moom mooy ah, moom maanaam maanaam Faye donc voilà Samba vas-y rapidement ci niveau bi uh-huh. am na niveau maanaam lu ñu naan formation initiale mais aussi formation continue uh-huh. li ñu wax rek mooy tey ay junni junni jàngalekat ñoom ci système bi ñoo xam ne ñoom seen bopp soxla nañu tàggat ñun suñu syndicat ñoo ngi liggéey ak ministère ci plateforme bi nga xam ne également déposé nañ ko pour xool nu ñuy fexee ba mu am un bon système maanaam de formation continue ñu man di leen saytu di leen topp bu ñu ko deful daal jàpp nañu ne euh, résultat yi moom day continuer di catastrophe pour loolu nag il faut ministère bi accompagner inspecteurs yi jox leen moyens yi ci war ñu dem di fekk enseignants yi ci classe yi di saytu seen liggéey euh, gën leen jàppale pour euh, daal pour sénégalais yu ndaw yi mën na seen jàng gën a ñooñ voilà Marie Sibi madame Faye yow yaay tëj comme yaa ubbi woon yow yaay yow yaay tëj rapidement <laughs> waaw jërëjëf fii Samba Diakhaté jeexalee rek laay tàmbale mhm. li mu wax yaakaar naa ne loolu dañ cee waxtaan ba déggoo ndax qualité wu jàngale bi ñun ñëpp la soxal tey formation initiale dina am ndax ku laa dugg danañ la tàggat ci biir it ñu ngi seet nu ñuy def ba boo nekkee ci biir ñu continuer di la jàppale ba nga gën a xarañ looloo tax tey jii dañoo négocier ak organisation internationale de la francophonie ñu am institut boo xam ne day former jàngalekat yi gën leen a loo institut boobu Sénégal góorlu na ba fii lañ ko nar a teg mhm. donc ñun ñoo ci nar a bénéficier lu ëpp ministère bi li muy lijjanti tey mooy nu ñuy def ba fi nga xam ne fa la ñuy tàggatee jàngalekat yi lépp yemb ñu mën a liggéey ci condition yu baax mhm. beneen élément bi mooy ñun ñëpp suñu soxla la donc ñun ñëpp ci taxaw te yaakaar naa ne ministre wax na ko mu dégg xam na ne ñu ngi ciy liggéey ñu ngay wuti lu ñu am ak lu ñu amul pour loolu yemb mhm. bi ci des mooy papis bu ñu la sàccoon sa oto nga toog juróomi weer mbaa juróom benn weer ñëw fekk ma may dawal oto bi mu leer la ne kii sa oto la danga ma naan comme yaa ngi koy dawal continuer koo dawal ah, xam nga di nga nangu sa oto kon nag ki nga xam ne ni nga duggee jaarul yoon duñ la bàyyi nga yeggali di nga génn ña waroon a dugg dugg njàng mi jëm kanam ndax fi mu toll nii li mhm. ñuy wax mooy dañu ne njàngale mi dafa sooxe ma nga commencé ca jàngalekat ya nañu seet nu ñuy gën a maye jàngalekat bi doole mm-hmm. mu am xam-xam bi war am comportement bi war parce que tam jàngale mooy seetu la pour xale bi donc ka ngay dugal na nekk nitu référence objectif yooyu la ñu am ñun ci système bi. Mm-hmm. pour pour bonne gouvernance équité transparence te ñoom ñii toog yaakaar naa ne dinañ ñu ci jàppale. pour suñu éducation Marie Sibi madame Faye bokkoon ci invité yi ci euh, élèves maîtres yi mu doon débatté bi fii ci télévision Futurs Médias ñuy remercier euh, tamit Momar Jim Cissé nekk ci parents d'élèves yi euh, Samba Diakhaté secrétaire général syndicat inspecteur de l'éducation Doudou Ndiaye ci Sud-Est Pape Demba Soumaré amical des élèves maîtres man mi ak ñi si ci àndal ci liggéey bi ñu leen di gërëm si li ngeen ànd ak ñun euh, suba incha allah nañuy tëj euh, nañuy defaat beneen euh, débat ici à la même heure merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur la télé Futur Média